salaamualeykum bokk réew mi bokk commune Kër Moussa man la Momar euh, maire de la commune de Kër Moussa au conseil des collectivités territoriales di souhaiter Sénégal yëpp particulièrement commune Kër Moussa tabaski jàmm yàlla nangul ñu suñu jaamu jéggal ñu suñuy bàkkaar ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam merci jërëjëf euh, euh, di leen dalal yéen Tawhid TV di ñaan ci yàlla itam télé bi vraiment euh, mu gën a law ci àdduna bi yëpp du mu wax Sénégal mais adduna bi yëpp te am nañ ci yaakaar te jàpp naa ne itam dina wuyoo turam ginnaaw loolu itam maa ngi balo àq Sénégal yëpp waaye nag Euh, di jiital ci balu àq bi commune Kër Moussa bi nga xam ne yàlla dogal na mu nekk commune boo xam ne man maa ko jiite euh, di leen balu àq ñoom ñëpp di leen souhaiter tabaski jàmm di leen ñaanal yàlla di ñaan yàlla feet bi yàlla nañ ko feetoo ci jàmm ñaan yàlla itam ñi mu fekk ci kawlal yàlla na yàlla fëgg seen bopp ñi mu fekk ci yenn jafe-jafe itam yàlla na yàlla génn leen ci euh, di ñaanal itam jeunesse bi surtout ñu di leen ñaanal euh, vraiment ñu am jàmm waaye nag di leen ñaanal ñu am ci lu ñu jàpp euh, di ñaanal itam mboolem délégué ak chef de village yi nga xam ne ñoo nekk ci biir commune bi yëpp waaye nag di beral nuyo particulièrement imam yi ndax ku ci ne xam na ne bisu tey jii ah mun naa ne seen bis la parce que ñëpp ñoom la ñuy déglu euh, looloo tax mu nekk jour boo xam ne itam jour bu am solo la ci diine muy feetu tabaski euh, donc bon ma di leen ñaanal yàlla ñoom imaam yi nga xam ne ñoo nekk ci biir commune bi yëpp jaarle ko ci seen association bi nga xam ne Mouhamed Diouf moo ko jiite di leen souhaiter vraiment tabaski jàmm Eh, waaye itam ñu may ma beral nuyoo imaam raati bu Kër Moussa nga xam ne mooy chef lieu de l' arrondissement mais mooy chef lieu de la commune eh, muy euh, euh, El Hadji euh, Wade Mouhamed Wade vraiment di ko ñaanal yàlla ah di ñaan yàlla itam eh, yàlla dimbali ko mu teg tànkam ci fa nga xam ne fala suñu sëriñ ki nga xam ne itam moo nekkoon suñu espoir moo nekkoon suñu euh, royuwaay di imaam Jibril Sine euh, yàlla teg ko ci tànk yamu mu tegoo woon te jàpp nañu ne euh, élève am la donc bon fa mu doon jaar rek foofu rek lay jaaraat am nañu yaakaar ci moom bu baax a baax ci taxawaayam ci wàllu njaboot gi ndax loolu itam bokk na ci li nga xamante ne yaakaar nañ ko ci imaam moo di euh, vraiment lépp loo xamante ne jëm na ci wàllu njaboot gi rek euh, lu mu ci man ci li ko ci diineem may mu def ko ci lu mu ci mën lu ko citoyenneté may aussi mu def ko ci ñu di ko souhaiter vraiment tabaski jàmm waaye it nuyoo boobu dañ koy teg ci loxoom pour mu tegal ñu ko ci kaw mbooleem imaam yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Kër Moussa te nekk ci ginnaawam waaw mooy am ci am ci regret vraiment am ci Euh, lu ñuy lu ñuy lu ñuy naqarlu lu ñuy tiis waaye it jàpp nañ ne rek euh, yàlla moo ci ñëw ak dogalam ndax ñaari at ci ren maanaam boog ñaari korité ci ren ñaari tabaski ci ren depuis mille ba léegi ratewuma ko Kër Moussa mais nag pandémie bi moo indi loolu lépp ba tax ñaari at yi ñaari julli it yëpp ma rate euh, loolu itam dañ koy delloo ci suñu borom delloo ci aussi précaution yi nga xam ne rek moom lañu diine santaane mais it moom lañu ñu ñu yore wér yaram santaane loolu rek la waaye du dara ndax ku gis ne daaw beren ñaari yoon a ngi ne aj amul ah, donc bon lii bu amee warul jaaxal kenn xanaa kay ñuy ñaan ñëpp ñu def ci ñaan ndax yàlla jële ko fi waaye it ñu jël ay matuwaay yoo xam ne itam dina tax ñu mën koo sori parce quoi qu'on dise Euh, feebar bi am na empleur bu doy waar boo xam ne jël na ko ci jamono yi ñu nekk te liñ ci mën a dimbali rek mooy fegu ndax dañuy wax ne fegu moo gën faju fegu bi nag mooy nañu di takka masque yi di moytandiku jotaayu mbooloo yi di moytandiku aussi yenn xew-xew yaa ngi ci suñ ko mënee moytandiku daal ñu moytandiko ndax yooyu bokk na ci yi nga xamante ne mooy gën a propager maanaam mooy gën a tasaare pandémie bi di souhaiter ñëpp vraiment tabaski jàmm Euh, di ñaan yàlla ah, tabaski ren mu ngiy dem euh, yàlla nañu fi ba déwén buy ñëwaat aussi mu fekk ñu fi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërëjëf